quoi ba tey ah Serge Ndonotou Live TV ah ñu ngi ba tey ci sunu émission bi nga xam ne mooy prolongation fii ci stade Alassane Djigo jógee guñ fi mais dañ fi ànd ak tey jii benn benn benn ndaanaan boo xam ne vraiment ci Pikine gi ñëpp xam nañ ko kenn dootu leen ko présenté dañ koy bàyyi moom mu wax ak yéen parce que xam naa ne namoon ngeen ko gëj ngeen te aussi bëggoon ngeen a xam ci lan la nekk mais dañ koy bàyyi moom mu présenté boppam nu yóg waa Pikine parce que xam na leen après ñu doog dugg ci waxtaan bi. waaw salaamaaleykum waa Live TV ñu leen di nuyu. di leen sant maay présenté wu communement boo man Pape Diallo laa tudd ñu bëri xam nañu fi quoi ancien joueur Las Pikine Goney Zeng fi laa defee suma carrière yëpp ba pare mais avec le temps dama xawoon a euh, dugg côté Sébikotane moo taxoon ñu bëri gisatuñ ma fi woon lu bëri quoi mais pour l'instant ñoo ngi fa am fa nag benn projet boo xam ne ubbi fa benn centre de football moo tax tey pour ñu ubbi ko ma ni woon bon fi ma cosaanoo laay ñëw ñu def ci premier match d'ouverture bi su ko defee au moins ñooñu yokk ma doole su ko defee au moins ñi may yor di leen jàngal xam au moins kan moo leen yor daal looloo taxoon tey ñu ñëw fii à Pikine pour def suñu premier match d'ouverture quoi waaw. Euh, Pape mun nañu xam centre bi kañ la kañ la ubbi. waaw centre bi am na ay euh, un an et quelques mois parce que bi mu ubbee pratiquement. après feebar bi moo taxoon ñu arrêté activité yi quoi mais par la suite après lañ ko reprendre nii bon ñi ngi ci commencé bii nag mooy suñ première sortie mais ñi ngi doon jouer ailleurs doon jouer feneen mais tey dama ne woon daal nañ def lépp pour ñëw Pikine su ko defee ñëpp mun koo tasaare ci àdduna bi ñu xam ne effectivement centre bi centre Omar Ndiaye Fall la tudd su Omar Ndiaye Fall doomu Pikine aussi doon joueur bu mag fii ba yàlla def mu nekk bitim réew léegi aussi di yëngu ci milieu football def ci lu ne ah yéen ci nit lu ne liggéey ku ne war ci am dara nag ñun ñu créé xalaat ne dañ ko war a tuddee dara loo xam ni sincèrement turam day law ba faw moo tax ñu créé structure bii nii man nag côté technique bi laa gën a mane maag suma adjoint bii Saxeer après léegi mun nga wax ak moom moom aussi ñu bàyyi de communication moom a gën a miin affaire yi daal. côté boobu sax dañ ci jëm parce que vraiment centre de formation yi dafa bari ak école de football yi Sénégal te ñu ci bari côté côté waaw côté administratif bi dafa xaw a doy waar. Euh, yow mi nga xam ne yaa géré côté communication beeg yëpp euh, ñu bëgg xam est-ce que centre bi tamit nekk na ci base yi nga xam ne tey jii dina mën a tax mu progresser. waaw maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal bu baax a baax baax di rappeler juste tur bi Fodé Badji la en tant que joueur. en tant que membre aussi de l' administration. waa centre bi dama leen di féliciter avant tout parce que ñaar ñi ay jàmbaar lañ quoi ay jàmbaar lañ te am nañ mental bu solide boo xamante ne bu jafe parce que ñun daanaka fu ñu dëkk Sébikotane daan bëri na talent yàlla mi ñu tiim xam na ne bëri na talent. mais du dëkk football laa mën a wax quoi en quelque sorte parce que foofu da nga fay sànq dara boo amul mental bu solide da ngay bàyyi vite fait peut-être que loolu moo leen arrivé ñoom mais ñu doon ay gars yu gars yu am jom am pas-pas am sérieux ne ñoom fi ñu seen tànk rek duñ fa teggi ma fas yéene nag ànd ceeg ñoom parce que loolu lañ ma woon te man noonu laa jàngee football noonu lañ ma yaree donc muy doon gars yi may jaajëfal bu baax a baax waa centre bi nag seen loxo la nekk franchement ñu ciy def liggéey bu am solo liggéey bu am am solo trop di ci def seen lépp seen ñaq seenu poos te lu jafe te benn moyen ñëwagul. te benn ñëw ñëwagul donc kii moom centre bi ñoom ñoo ko fi nekkal wax dëgg fa yàlla ñoom ñoo nekk instant di ci def lu ñam ak lu. waaw ah, do doguma la damay damay introduire juste coach rek. Mm. parce que ci li nga wax laay def ak euh, dugg ak moom. Mm-hmm. mooy que mooy que dëkk boo xam ne. Mm-hmm. Euh, euh, peut-être lii mu ngi fay doog a am. Mm-hmm. juste suñu laaj coach rek dëkk dëkkuwaay bi. ak par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi nan la ñu accueillir centre bi nga xam ne tey yii nii bu ma bu ma mën moom mooy moom mooy waaw salaamaaleykum xanaa di kontaan bu baax a baax a baax ci euh, question bi aussi euh, di kontaan bu baax ci ci ci ci dalal bi euh, ci dalal bi vraiment da nga laaj question bu am solo pratiquement sax sama kii faafoo wax na lépp vraiment mook Omar mais nag am na loo xam ne ni vraiment mooy li nga wax ci côté bo ci côté accueil bi vraiment du ma la ne du ma la ne du ma la ne def nañ am na 100 pour des na trop. des na vraiment parce que dañu nekk dëkk boo xam dafa dañoo dafa naqari pour nga pour nga pour nga taxaw fa benn structure nga def fa lenn loo xam ne nii vraiment lu lu lu lu ñu mën a kii la pour ñu jàppale la se daf lu jafe la. lu jafe la vraiment mais nag xam nga nit booy dugg ci benn affaire faaw nga am gëm-gëm looy dugg te amoo ci gëm-gëm rek bu la yeboo nga dem nga toog surtout ñun côté ñun côté bi ñu féete dañu ko dañu dañu féete ci côté boo xam ne pour ñu pour ñu entraîner ci terrain sax. xamuñu ne ñii nii dañu yor ñoo xam dañuy dañ leen jàngal football dañuy def ci ñoom euh, xam-xamu football dañ leen di éduquer comprendre nga ñu mën la bàyyi mais dañuy yëpp fekk la sax ci terrain sax di xëccoog yow ah, mais mais waaw loolu mm-hmm. tamit mm-hmm. dem yi nga xam ne ñoom ñooy autorité euh, euh, yi mm-hmm. aussi yi dem seeti ji leen euh, les personnes morales ba pare en même temps récupérer les parents boole leen ci est-ce que loolu effectivement bon xam nga bu ñuy soog a commencé dañu def dañu ut ay autorisation parentale ñu ngeeg suñuy papier et tout xam nga lu parent bi àndul rek ñun duñ ci ànd ah. aussi tamit pratiquement ñu fi nekk ñëpp c'est des élèves donc ci loolu noonu la ñu gën a la ñu la ñu gën a wu parents yi jox nañu seen accord ci seen i doom autorités tamit aussi tamit bind nañ suñu suñ suñuy lettre envoyé leen ko comprendre kon donc yaakaar naa ne ñoom bu ñu joxee seen seen seen seen kii rek seen accord rek kon pour man dara desatu fa quoi. léegi kon yow lan mooy ban ban lan ngeen di jooytu tey loo xam ne tey jii nii bu leen ko bu leen ko éli la koy joxoon tey jii nii nii nii nii seen liggéey dina gën a mën a mën a mën a mën a. waaw mais xam nga comme comme li ñëpp di jooy rek xam nga tey jii ku ku ku taxawal benn structure nga taxawal nga taxawal lu toll ne centre de formation c'est pas quelque chose boo xam ne lu ndaw la quoi nekkul lu ndaw léegi ñoom bu ñu utaloon ci ci ci budget bi nga xam ne moom moo fa nekk ñu utal la ci lenn loo xam ne wala ñu utal la ay ay ay ay matériel et tout xam nga jàppalee la ko quoi jàppalee la ko ñu appuyer la xam nga loolu sa loolu loolu loolu rek ça suffit quoi pour man lu lu doy la loo xam ne di nga ci mën a kii mais dañ lay seetaan mais ñun dañuy dem ak moyens yi nga xam moom la ñu am à bord comprendre nga ñun moyens yi am actuellement nga xam ne ñun ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko utal suñu suñu bopp xaaruñu ci kenn quoi pour wax la ne ñu lu ñuy def dañ ko gëm dañ ko bëgg ku kuñ ci fekk si ñu dem kuñ ci fekk si tamit ñun ñu ñu dem ak ñu nga xam ñoom ñoo fi nekk actuellement. voilà centre bi tey ji actuellement nii euh, mu ngi basé wu Sébikotane. Mm-hmm. voilà ku ci ku ci ku ci ku ci bëgg bokk wala ku ci bëgg a wu euh, dafay fay wala wala nan lay demee. waaw <laughs> non laaj nga lu am solo loolu tamit euh, lu jar a leeral la. centre bi indiwuñ ko pour fay xam nga pour wax la rek à chaque fois ñi ngi xool boo yi nga xam ne moom la ki yor wàll technique bi wax léegi muy Fodé. laaj ñu kenn dara laaj ñu kenn dara muy loisir muy leneen ak leneen laaj ñu kenn dara même ba ñuy ñëw suñuy côté transport et tout laaj ñu kenn ku am talent nga xam ne wóolu nga sa talent te bëgg nga football bëgg ku la jàppale boo ñëwee dañ lay dañ lay buntu yëpp ibbeeku na. Hmm. buntu yëpp ibbeeku na pour ñu pour pour ñu jàppale la. voilà d'accord buntu yëpp ubbeeku na pour ñu jàppale ko ñu jàppale booy donc yow mi nga xam ne yow yaa yor communication bi parce que comme li mu wax aussi lu ñu jar a seetaat la communication c'est pas dit que ne dama dañ ma koy jox rek damay dem toog mais tey li nga xam ne tey population bi tey jii nii Sébikotane war nañ ko xam ci centre bi loolu sa loxo la nekk. waaw comme tey jii nii bon. vu que yàlla def na ne peut-être jàng naa tuuti waay peut-être ñoo xaw a bokk même bi donc tey jii nii ñoo ngi ci wàllum promotion bi ci wàllum marketing bi ci côté ci côté réseau yi am nañ page Instagram am nañ Facebook am nañu page euh, Twitter bi euh, déggal du moins YouTube bi lañ ubbeegul parce que YouTube bi commencé guñ def ay match officiel mais daanaka kon nii nii am nañ match officiel nañ ci tàmbale donc ñoo ngi def communication bu bu am bu bu am solo n'empêche que ni ñu ko waxee fii nii man jàpp naa ne jour boo bëggee dara yaay wari quoi yaay wari ñun lépp luñ ci def ñoo ngi sensibiliser jeunes yi. ñoo ñoo ngi fexe tout ba jeunes yi ñëw di ñu approché mën a parce que centre bii nii tàmbaleekuñ sax parce que fii nii di nga fiy seet di nga fi ñëwaat doo fi ci sa tête ça veut dire que donc ñoo ngi ci ba tey coach yi ñoo ngi ci critère de sélection instant nii du maa ci centre beeg c'est définitif non non centre bi ku fi nekk tey jii nii am nga benn fiche boo remplir ba sa parent jot ci ba signé ci donc loolu rek pour pour pour garantie la pour wane ne sa papa yow adhéré nga wala say waay jur adhéré nga centre tel donc ci loolu lépp ñu ngi ciy fayee nànk-nànk donc le reste nag. liggéey bi gën a des liggéey liggéey bi ëpp solo daanaka tàmbale nañ ko daal li des nag dañuy motali nànk-nànk avec le temps ça va venir. waaw dëgg dëgg la li des dañ le temps ça va venir bon ah, di leen ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci côté secteur boobu noonu na ci ñëpp ñëw jàpp parce que vraiment c'est un début te début dafa difficile di leen ñaanal coach c'est vrai que yoon bi sori na mais yàlla na leen ci yàlla jàppale. voilà ñuy woon ba tey suñu émission en prolongation fii ci stade bi bon doon seet si suñu benn euh, xarit euh, Pape Diallo koo xam ne jeune fi Pikine jeune fi Gunaas 5 jeune fépp ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon xam naa dinañ déplacé wu dem ba sébi seeti ji leen gën a mën a waxtaan ak ñoom jaajëf